Kapım Diop Sarr yi Abdou Mbaye patriote patriote patriote Dial Cerno Dial ziar naa la damay nuyoo rek eh kooku sama doom day sama jigéen sama xarit Diena sopp la jëri maay deux mille eh, nguuru nguuru jomaay xam naa diñ ci góorgóorlu ba wax nit nga def ko buñ boo ñëwetee Dakar gis la loolu bokk na ci tamit sàmm sa kàddu daal loolu solo mi Njaay Njaay jaata ziar naa jigéen sama xarit ñi ma gëjoon gis ñëpp maa ngi nii gi moom booy jaw genre bëri wër gi moom bu demee ba fi ne nii di waaj a de ndeysaan dañuy triste daal Rosemary Sharon naa la big up Pape Abdoulaye Kébé euh, temps yi nag temps yi nag damaa raar ci live yi de moom temps yi damay ñëw def vidéo sànni ko fa dem sama yoon bon non mi naa maa la raw jëriñu leen raw de billaay jëriñ de xanaa bor yu bëree ko sonal rek te comme gars yi dañoo arrêté affaire kaño di te lim jot lim jot leb dafa bari neuf mois yi mu toog Sénégal yëpp da leb di dundee donc loolu moo tax. moo tax fi mu dafa xaw kii daal Tafa Dicko jaar naa la ah Tafa Dicko moo ko Amina Dicko la Mami Fa maam Thierno Sila jaar baax a baax a baax Elzo KMD hmm, Fally Diedhiou is watching naaw so maa leen jaar yéen ñëpp di leen bëggeewaat di leen gën a safoo di leen baalawaat ak bu baax a baax ci weeru koor gi di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na yàlla yàlla suñu borom nangu te Euh, may ñu fekk ay ramadaan yu bëree bëri yàlla mën na ko yàlla ko suñu borom defal Fatima Sawa xaritu Isa Jéen a ngi nii de Seynabou Ly jaar naa la bu baax a baax Idrissa Diagne hmm? Awa Gueye Ndiaye maa ngi ziar waaw Nafili Sissoko maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp lii sax da ci baax ngay luur turu gars yi di leen nuyu ñoom ñëpp atte bi war fay waaw fu ne nii nag loolu ma tax ma topp ci liggéey bi nag di daw maa ngi ci uuba bi dama dawal uuba dawal uuba ba ndoog uuba fi mu toll nii dama sonn ci dawal bi donc ci loolu laa nekk saali xaat bu sonko ye bëgg njaay bëgg dama laa faaleetul léegi da nga may provoqué ci commentaire du ma sax lii dama la fay romb dama koy gis nga naan ma ay la ngay bind sax ay filtre rek yu naan duma la sax faale eh, marginal outlaw Moussa Faye ziar naa la baax a baax mam jorna Sila Sofi Njaay Sofia Njaay ziar ah ko la rak jambour ziar na la la la la baas la xal xeyr nda kull alhamdullilah Isa jien Isa ziar na la Isa affaire bo meuna dug ma dug way yag na nga wax yag nga maa kaa dugg sama life ma bañ bo bo duggee ya xam bo dugul ya xama ah, en fait dama lay wax ni rek ndax comme dama ko dugu, wax ma baña a mu na la ko tam nga baña dug ha ah. sama ci dama la koy wax rek. ah ma rek ngay topp ah kon baax na waaw fi ñu moom sama ñëw Allemagne moom fi ñu ne nii moom fa ma préparé ak moom seet si la moom. Kaja Diallo jardin la sœur ok damaa bëgg gars yi nuyoo yi mu maa ngi nuyoo rek ba tey booy booy Birane ma ko nuyu rek des fois day yaakaar ni danga ko bañ a lire quoi bon euh, gars yi gis naa ndeysaan patriote dafa am benn affaire boo xamante ni dañ ko baaxoo quoi mooy dañuy xàccandoo di dóorandoo te des fois mën nañoo dóor foo xam day metti E, te te te te te te ñun ñëpp ñoo bokk combat bi euh, tantôt Malick <laughs> Malick comédien nga léegi boo boo leen waxee de comédien dañuy wax Malick mooy comédien bi man léegi chroniqueur laa Malick mooy comédien bi voilà moom mooy def ay vidéo am di fecc def ay affaire man chroniqueur laa il faut que ñu respectante tamit quoi. boo amul cent non cent dina ñëw di nga dugg fekkee cent moom di nga dugg may dem ba ay deux cent trois cent nga lan yow toogal foofu Isa tantôt. gars yi ni ñu ñëwee ci propos Karim Xurum Xaq yi gars yi ku nekk xam nga xam nga Karim c'est un fourre-tout la maanaam dangay jël lépp maa nga sànni lépp mais munoo tantôt Karim patriote la Karim nitu dëgg la Karim nangam sangam la après tantôt ki dafa réew xamul ni muy waxee dafa nangam sangam non non non dañuy jël ni Karim mel ñu utiliser ko noonu bu baaxee ci ñun baax na su baax parce que il faut que ñu bañ a ñu bañ a dem ci. commencé indi ay yenn guerre yoo xamante ni nii arrangé wuñ ko en fait parce que man dafa am ñoo xam ne su ma gisee seen publication ñu dal ci kaw Karim mais Karim noonu la mës a mel Karim noonu la mës a waxee Macky sàll ni muy sentir waxee noonu lay waxee donc kan moo bon gis nga dafa am benn wax boo xamante ni gars il faut que ñu ñu ñu ñu wàcc ko ba mu ba mu kii nag quoi ba mu ba mu ba mu niveau ba mu wàcc ñu doog a mën a ñu kon ne waxtaan. maanaam Sénégal tey boo fi wax ay jëwriñ ay sang bi ay ko sell ki ay son excellence loolu nit mënu ko génne ni seeni waxu ko loolu nit mënul génne man maa ko parce que El Malick Ndiaye mi lay mbili mi ñuy fal ministre whatever whatever te dama seen lan moo tax ngay loolu ma ko en fait waa APR damay bëgg di leen kokkali pour wan leen ne Ousmane Sonko joxuñu ko sax dimension nit ku kawee ko jox moo maanaam pour wax jooju mais ci sama diine sama aqida xam naa ne Ousmane Sonko foofu ci ci ko wax mel ni koo xamante ne nii nit yàlla la bu kawee bu kawee noonu sangam donte sax gëm naa nit yàlla la mais maanaam ni ma koy waxee noonu c'était méthode la woon mën pour waa APR pour ñu pour ñu pour ñu en pour ñu mën a xam ne ñun mënuñ ñoo changé loo avis mënuñ ñoo bàyyiloo mënuñ ñoo découragé lo parce que noonu la ñu mel ci Ousmane Sonko donc Karim Xurum Xaq tey bu ñëwee wàcc terraate ne Ousmane bàyyi affaire nangam sangam da koo waxee comme quoi que ñu jël jàppale Ousmane Sonko gunge ko ci projet bi bañ def affaire du partisan bañ def affaire de waa APR lu gëm ma lu waay def baax na loolu bi ñu koy def mooy moment bi nga xamante ni dañoo bañoon ku ñu tàqale Ousmane dañoo bañoon ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu yàq suñu xel ci Ousmane mais bi moment di loo au feu la toog di wàcc di xool yi muy teg loolu mooy ñu koy jàppale loolu mooy seetatal bi am bërki démb loolu mooy ko ci wax nga ne li ma sentir boo dégloo discours am bi mu def mu ni Macky Sall ni mu wéetee loolu yéene ma ko Bassirou Diomaye feewu mandaam te loolu lu koy wax luy tere mu am nag mooy ñuy xool di déglu di ko gungee di ko jàppale loolu mooy tere loolu am mais bu ñu bëggee def affaire far noonu nangam sangam ñun ay te xam nga ñun ay taalibe na non non non doxewul noonu mooy gars yi bind nañ frustration ay poste car man poste nga ko jox def ban ministre la ma nekk mu nekk benn poste so il faut que ñu bañ a jël affaire de kii dafa am lu mu yaakaar dafa am lu mu bëgg dafa am non il faut que ñu xam ni yàgg nañu wax suñuy discours maye wuñ fi cent jours amul kuñ fi fal demee da gay liggéey ñun ñëpp ay méthodes ñu doon utiliser la. so naaw bu ñëwee ba si ci yàlla jox ñu li ñu doon wut il faut que ñu xam ni Karim du wax pour noonu Ousmane ko ndax Karim xeex na campagne na def na lépp ndax pour Ousmane Sonko jël réew mi kon ban intérêt la am Ousmane Sonko jël réew mu koy xeex mu koy xeex bañ di. bëgg publication xas nit ki rek wala des nga am ay règlement de compte yoo bëgg a lijjanti nit rek comme Babacar Diop euh, rebelle bi mooy ex rebelle bi maa moom dañoo bokkoon groupe maa ngi moom Issa Dieng ak ay pit laay pit ay pita laay pita xaw ma pita góor xam bëri woon na ñoom Khadija maye koor dañoo bëri mooy temps yi ñu def pencum xaw ma ni ñu koy waxee sax pencum yi waree ba benn bi ñu doon départ dimanche mais heure bu ñu fa nekkee mag Babacar Diop ñooy bokk même position défendre Karim parce que xamul ndax en fait Issa Diène moom day day day day tàggale Karim mais man ak Babacar parce que man li ma gëm mooy nit ñi nañ leen bàyyi ñu wax li nekk seen xel. bu ñu defee erreur bi mag Sall def mooy nit ñi duñu wax seen xalaat dañuy indi ay conflits yu baree baree baree bari nit ñi bàyyi leen ñu wax leen di nekk ñu wax li nekk seen xel. Euh, Mendy maanaam loolu de problème il faut ñu bàyyi ko nit ki wax wax dof nga d'accord man maa ngi des fois am ñoo xamante ni tey si tey tey man sama fierté la wallahi ci weeru koor nag sama fierté la tey 2017 ba may càmbale di live may live xam nga ñoom Issa yéen live gisoo leen fi kenn ku doon sonko sonko sonko sonko tey sama fierté la projet boobu tey jël réew mi mais moment ba ma ko doon wax dof la ki soof wallahi restaurant yi fii Amérique nit ñi dañ ma jéppi woon wa rabbul kaabati yàlla ne man maa seede nit ñi dañ ma jéppi ndax sonko sonko ji ma nekkee sang bi nangam sangam soof nit ñi parce que nit ñi en fait loolu lañ sentir moment boobu ci daf ñu soof bëgguñu forcer waa ji affaire du par force du nangam sangam du nangam sangam mais tey man fierté la tey ñu dem ba loolu nit kooku tam yàlla dénk leen réew mi ñu yor doxal. man pare xalaas pare naa ci man ci leneen su ma ñëwee fii ay wax naa ci samay conneries bëggee tooñante mbalaj ñu kontaan ñu ñëpp ñu bëggee après ñu ne si jàmm xool doxal projet bi lépp luñ ci mën a jàpp tamit ñu jàpp ko ci. loolu mooy gëm-gëm donc man mënu ma gëm Karim dafa xeex bi après ñu taxawaat fii pour yàq lim xeex yëpp non non non. dafa am lu mu bëgg boo yi ñu téye ci kaso bi nañ leen libéré na ko kaas ni mu ko bëgg a kaasee nañ ko ko nangul waaye terewul tamit président Bassirou Diomaye nañ ko war a doxalee ak justice noonu la koy doxalee rek. mais maanaam buy amul intelligence su nangul nit ñi ñu wax li nekk seen dënn dañuy def ay frustration comme Macky Sall lim def maanaam dajale nit ñi ñëpp frustré ku nekk mer après ñu sot sotoo la dafa duñ élection mais sot sotoo lañ ko def ndax li am Sénégal mosu fa am premier tour opposant ñëw dóor waa ji yi yu rafet laa waa dafa dem. coalition dem deuxième tour bu doo ko gagné Macky Sall ñëw same thing ni Diomaye Faye ñëw premier tour mu dóor waaj ji lépp mu leer nañ bàcc muy leer no uh, no I'm sorry I don't have no change with me sorry man euh, bañu ko wax xalaat man man sama xalaat laay wax nii non maanaam li may bañ mooy xuloo xasante maanaam ku nekk na indi di nañ toll foo xamante ne nii dañuy dañuy dañuy dañuy dépassionné affaire yi maanaam nit ki wax xalaat man na nangul ko man damay bokk ci groupe yoo xamante ni ay wax yu garaaw ñun yàgg naa leen defal live na man TFM laay seetaan seen TV laay seetaan parce que au fait foofu dañ fay wax lu ma naqari mais dama koy seetaan parce que man dama am man xool boobu la am quoi na di wax lu ma naqari ma toog di ko déglu sans mu déranger ma garaaw parce que xalaatam lay wax ah li muy wax mënul changer sama peut-être du ma convaincre mais dama koy bàyyi mu ko parce que loolu mooy freedom of of speech moo ngi Ousmane Ousmane Tounkara sax du koy wax ci live maanaam nit am na liberté wax li mu xalaat wax ko bu dee wax dof na ko wax bu dee luy jëriñ baax na mais nañ ko bàyyi wax quoi. Pape maa lay bëgg maa lay bëgg depuis Gabon comprendre nga maanaam man lu may bañ mooy ñu def comme li Macky Sall def commencé créer ay conflits. di indi man xam man man moom man moom rôle bi ma joué ñëpp xam ne ko man moom dama nekk rôle boo xamante ni sentinelle bëgguma kenn xuloo bëgguma kenn mer bëgguma kenn di dóoru tojante bopp rawatina ñu bokk ñoo xam ne dañuy jafel Ousmane Sonko li muy liggéey man ne naan chaque jour ci li may dox mooy lu yombal Ousmane Sonko li muy liggéey rek ñëpp ñoo bokk yu xeex bi ay patriote lañ xàccandoo dóorandoo ñëpp xam ni ñu booy ñu ngi liggéey ñëpp xam ni booy yi kat ku leen dimbali ñu mi maanaam ñun ci loolu lañ nekkoon ba bi pourquoi ñuy dugg ci détail yoo xamante nii xam nga commencé ay kii ñeneen ñu toog fi bëgg am la ñu retaan nekkatuñu opposition pouvoir yor mais pouvoir bu ñu ko yor nag yéen nañ bàyyi xeex bi te concentré wu ci projet yi ko am sa projet bu baax bu bu sérieux demal nga bind ko te préparé déposé ko ñàkkul ne xam nga ci liveur yi ñàkkul nga xam nga ci ci ci cellule de communication ñàkkul nga xam nga ci ay waa passé soo paree sa projet bu dëgër nga dem déposé ko pour ñu jàppale nga liggéey sa projet nga jéem a am loo occupé man loolu laay boo patriote yi mënoo leen xeeb moo tax gis nga dafa am ñoom bërki démb damay toog du xool ay ñoom soxna Soda ah, ay ñoom euh, euh, nu mu tudd sax euh, Momo booy Momo ay ay ñoom kii Anna Label booy bi ñuy dox ci carpe carpe douze yi sama xol bi sedd goo xamante nii wallahi ma xool ni booy ñoo nekkoon ci opposition di sànni xeer di wàcc ci terrain bi di rey seen bopp booy def na lu ne tey xool leen ñu ngi dox ci red carpet di waako sañ sa rafet nekk ci xel loolu maanaam loolu man loolu rek plaisir boobu rek maanaam ñi ñu jox rêve yi ñu jox ñi ñu jox xale yi ñu jox ay rêve xale yi xam xale yi opposition la woon xale yi sànni xeer topp ci daw seen tànk yi tilim buntu rëbës booy foo dem fekk leen ñu sonn ci combat bi tey nga gis leen ñu sañ sa ba rafet ñoo taxaw dox ci red carpet xam nga nekk ay jigéen yu jekk booy moomoo sol costume bu rafet cest loolu bu bu bu seddul sa xol lan mooy sedd sa xol man ci man ci yu positif yooyu ak liñ dund ni méttee man ci loolu laa bëgg ñu nekk ci ñu bàyyi di nekk ci ay futilité ay xeex va-t-en à la guerre rek chaque jour ñu ngi ci xeex bu métti métti saa dem ba yor nguur bëgg di xuloo di xeex suñu biir mais lu rafet li jot am booy di ko def ñi ñi yi jëmbat garab yi toppatoo affaire yi maanaam mbir yi neex neex goo xam Sonko li mu teg ci gouvernement dafa dal xel dal xel goo xamante ne nii yàlla xam na ni patriote bu ñu góorgóorlu réew réew mi mel ni États-Unis xam nga réew mi nag bu mel ni États-Unis moom damay ñibbi si moom boobaa nag ñi moom dama leen delloo seen i kayit dëgg fa yàlla boobaa dama leen delloo seen i kayit moom leen nag dëgg yàlla moom dimbali ngeen ma trop dëgg yàlla kayit bi mu soxlaatu naa nga dem ci wetu Sonko ci من مر لو لاي بان تيور لاي اي اسوار لاي بان اي خيخ اي خلو اي كونفلي من لو لاي بالله والله من بولي ما ديمبلي سي لول رك يالا خامن ما ما ما ما سانت لين غورم ني ديمبل لين ما رك يالا خامن نكو لول لاي نيان يالا او بالله والله لا لا مي تاك دي aaya baa ngi tag de moo ni nit ñaa ngi wàcc